am solo ñu ngi ñu ngi taxaw taxawaay am solo kon donc ñu ngi jox rek moom nga xam ne diplôme la boo xam ne diplôme tiitar waaye mënoon na nekk diplôme tiitari

góorgóorlu pour former ñi nga xam ne ñoom ñoo war a def loolu loolu loolu ko duñ leen former ba pare ñu nekk juróom-ñetti fukk ak juróom-benn ñu ñëw di leen jébbal seen i diplôme loolu moo waral cérémonie bi waaw li léegi ñun dañu constaté nit dana dana gaañu ñu koy seetal ku koy sang te mënuñu ko am loolu kay musiba la loolu am ci société bi war nañu moo ne ñun suñu ñi nga def premier tour bi première session bi première session mais day plusieurs sessions ñu organiser ko incha allahu imam Balla ñoom imam ñëpp ak association bi bureau bi ñoom ñëpp ñu taxaw ci mu nekk loo xam année

de formation. non non 86 personnes. il donc premièrement il faut que nous nous nous les autorités locales hein, maire yi préfet préfet responsable les amoureux, les les amoureux, les amoureux, les amoureux, amul amoureux, amul amoureux, les amoureux, war na formation Euh, ba ñi xam ne ñoo koy def ñu mun a sawar ci euh, ki nga xamante mooy euh, sang néew ñëpp xam nañ dafa xaw a sensible jullit jullit boo koy defar mu kallaf te bu gën a ci boo koy defar bu dee jigéen nga nekk jigéen boo nekkul jigéen tamit nga nekk koo xam ne euh, munoo woon sëy ak ci gàttal euh, bu ko defee nga maandu nga am xorma boo koy defar loo gis bu ko wax loolu yëpp wax nañ leen ko ci ci ci ci formation bi tey tamit ñu koy defaree doo laal yaramam am na awraam doo ko laal doo ko gis da koy muur yooyu yëpp ay technique la yoo xam ne wax nañ leen ko bu ko defee kon ci gàttal bëgg nañu ci kuy defar néew nga am orme nga nga am secret nga téye sa lamiñ te loo fa gis doo ko wax waaw doo wax ne xonq na doo wax ne ñuul la doo wax ne nii la doo wax ne naa la loolu bokkul ci li ñu bëgg ci kuy defar néew tey tamit ni ñuy defaree néew yomb na sangu janaba la da koy xobbali defar ko ba mu baax yooyu yëpp wax nañ leen ko nga defar ko ba mu baax door ko defar sangu sangu lavage euh, euh, euh, purification islamique

te incha allah am na yoo xam ne xëju fi waaye yooyu yëpp wax nañ leen ko. incha allah ñu ngi leen di sant di leen gërëm. di gëm gërëm parent yi di gërëm di féliciter les récipiendaires yi nga xam ne ñoo am association bi ñoo participé woon ci ci ci ci formation bi di leen euh, ñaanal euh, incha allah. ñu ngi yëkkati suñu nuyoo ak suñu cant ak suñu gërëm ci teew bi nga xam ne teew nañu fii waaye ci saxam mbir mi yépp nga xam ne ci la jaare di sama papa bu baax yoo xam ne aw mu pay muy imaam man génération yi bii toog doomam xam na sama diggante moom lu ma nekk muy lu neex muy lu naqari ak lu mu mun di doon dana ko jaarale jóg def ca lu mu man ba def ca sax lu mu man rawatina yow mii nga xam ne yow it mu ne dama la fiy jël ngeen jël ay nit jàngal ba nga xam ne ba dañu laa mën a delloowaat ci borom ñu mën laa sang defar la ba nga sell ñu soog laa delloo suñu borom ndax nag noonu lañ fi ñëwee woon kenn ku nekk ci ñun di nga fiy ñëw andaale wuloo bàkkaar kon booy delluwaat itam gannaaw bu nga defee say jaamu yàlla ci ni ko mënee nga génn àdduna bàyyi fi sa gannaaw te ñi ci jiitu mooy ñu mel ni yéen seen imaam yii yéen imaam yii ngeen wàccee gaam sang sang julli te mu sell su la koy def kon moom man bëgg naa ko sopp naa ko yal na yàlla boole sopp kon ñu woo ko ñaan Fama Farma Seck su fekkee ne mu ngi nii kon yow yaay jox soxna Farma Seck. kon nag ngi delluwaat rek sant suñu borom sant sama imaam tudd naa turam léegi nag. dama doon xaar bañ taxaw fi bi ñu ma waxee na ma damay joxe diplôme bi muy Bassirou Gueye wax dëgg yàlla imaam xele la yàgg nañoo jiite moom it mu remplace suñu papa rawaan waatu waaye la fa nekk nekkaat naa moom ay at sax suñu ñëwee góor gi dinaan ko demal ca jiite na ko ay at góor gi soog a dem waaye moom it muy imaam bu baax bu tam xam lawul kenn lépp lu xew ci gox ba mu dëkk ak nu mu mën a xewee Alioune Faye euh

alhamdulilah kooku ñu dafa wax ne ndax dafay laaj imam bu nekk ci kàkk bi sant la ko buutan wala buutee day ne su jàng ku ne tey bopp ñu war a war a su nekk tey bopp man képp koo xam ne nii mën ngaa sant ngir yàlla nga ñëw sant ngir yàlla yàlla moo lay fay su nekkee loolu amul na maanaam dañuy seet koo xam ne nii mën naa sant ñu sant ko ku fay ko lii d'accord dama ci doon ne nag imam bi nga xam ne moom mu ngi toog mën naa ko ba pare ñëw dañuy nag moom nañu nag jeexal nañu cérémonie euh, liñ daan def liñ doon def ci kàttanu yàlla yàlla yàlla def barke ci diplôme yi yàlla nañu gëj di sang néew yàlla na géej xam nga lu xam nga lu lu baax la waaye yàlla na géej bu ñu jog fii rek am say néew bu ñu sang déedéet dañu toog ay <laughs> ati ati at door a sang néew ah amin ya rabbal kon ñi nga xam ne ñoo am diplôme bi bu ñu wax ne diplôme bi diplôme du dara ah diplôme indicateur la rek daf lay won ne yow am nga niveau bi mais boo bàyyee rek mu bàyyi la bari na ñu am diplôme xamuñu dara ñu ngi fi fees del bari na ñu am diplôme boo dajeek ñoom ci événement yi ci ngay xam ne vraiment diplôme du dara dañ naan diw docteur nëngam diw docteur nangam boo ko invité ci yenn événement yi rek bu la bindalee nga waaru bu la waxee nga rus